yàlla na jàmm nekk si yéen wa yàlla wa barakaatu ak barkeem ahadul kenn si waxambaane yi ne tax mu ne amit danaa ah, man bi xayri maa ngi sant yàlla kay fa def man antum yéen ñan mu ne <clears throat> ahadum kenn si ñun mu ne naxnu ñun abnaa u ay doomu docteur nañ docteur Moussa lañ mu ne ahlan ma leen dalal wa sahlan wàcc leen wàcc bu yomb wa marhaban maa ngi leen yaatal abukum seen papa sadiqi sama xarit la ayna amukum an seen ayna amukum an seen baay tax see xeesaat mooy see xeesaa ahadum kenn si ñoom mu ne woo moom maridun aj feebar la mm, woo moom al aana léegi fil mustasfa mu ngi si hôpital bi mu ne mu ne safaawullaahu yàlla na ko yàlla saafara mu ne man xaatat tiflatu kan ma xale bi allati ba nga xamante ni maakum mi ànd ak yéen moo ne ahadum kenn si ñoom mu ne hiya moom uxtu naa sin mbokk la mu ne xamit xamit maa ismuha lan mooy turam mu ne ahadum ñoom mu ne ismuha turam layla mooy layla xamit xamit mu ne ayna baytukum an seen kër aljadidu bees bi ahadum kenn ñoom mu tontu ko mu ko baytu naa baytu naa aljadid seen kër gu bees bi xaribun aji jege la minal mataari si kii bi minal mataari si si lii bi mu ne minal mataari si ay dapoor bi mu xaamit xaamit mu ne a ah, antum ndax yéen fi madrasati sanawiya yéen a ngi si école sanawiya mu ne ahadum kenn si mu ne laa ndax na ñun bil jaamaat ñu ngi si université bi ana man fii kuliyatil hindi handisi maa ngi si kuliyati ingénieur bi wa mahmoud mahmoud fii kuliyati tib mu ngi si kuliyati docteur bi wa ibrahim ibrahim fii kuliyati mu fi kuliyati sariat mu ngi si kuliyati sariat wa yusuf yusuf fii kuliyati tijaar mu ngi si kuliya commerçant bi mu ne xaamit mu ne man zaalikal fata kan mooy waxambaane bi allazi ba nga xamante ni fii sayaaratikum mu ngi seen oto bi mahmud huwa mahmud mu ne huwa moom samili sama àndoor la hamid hamid min ayna huwa ana moom fu mu jugee mu ne huwa moom min Angleterre mu ngi jugee Angleterre maa ismu la mooy turam ismu turam william mooy william a muslimu ndax julit la huwa moom mu ne laa huwa moom nasraani nasraan la abu papam ustaas mooy ustaas ismu turam a docteur Idouard mooy docteur Idouard mu ne yahdiya humullahu yàlla na ko yàlla jubal ila islam jëm si islam mu ne xamit xamit mu ne asabtum ndax dem ngeen mu ne yahdihum allah yàlla na yàlla jubal ila islam jëm si islam mu ne xamit xamit asabtum ndax dem ngeen ila mustasfa jëm si hôpital bi li ziyaarati amikum li ziyaar seen baay tax alyawma tey yusuf yusuf naam waaw sabab naa dem nañ mu ne tamaarin lii jëmantu la ajib tontal xan asalatil aati si laaj yi dikk nee na laaj yi dikk nga tontu ko man antum mu ne man antum yéen yéenay ñaan mu ne ayna baytukum an seen kër mu ne man rabbukum kan sooy borom kan mooy seen borom maa luxatukum lan mooy seen làng ayna mudarrisatukum ana seen jàngalkat bi a ah, mu ne a ah, antum ndax yéen muslimuna ay julli ngeen mu ne a ah, fii baytukum ndax nekk nañ seen kër hadiqatum saar dee mu ne a andukum ndax am ngeen oto mu ne ayna mudarrisukum ana seen jàngalkat bi mu ne a antum ndax yéen mudarrisuna ay jàngalkat ngeen iqra jàngal waxtu ta nga bind li mu wax léegi nag yooyu noonu yaa koy tontu mu ne iqra jàngal waxtu tanga bind mu ne naxnu ñun muslimuuna ay julli nañ allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wal islaam islaam diinuna mooy suñu diina wan nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rasuluna mooy suñu yonentu wal quranul karim quranul karim kitaabuna mooy suñu téere wal kaxmat kaaba qibluna mooy suñu qibla mu ne waa arabiyatul laa nga arab luxatuna mooy suñu laa nga ay na mu darisukum ana seen jàngal kat yaa ixwaan yéen samay mbokk xaraja génn ala ana léegi minal fas jógee si classe bi wa sababa dem na ilal mudiri jëm si directeur bi mu ne fii ay saare ban mbedd baytukum moo nekk seen kër mu ne baytu naa nekk na sin kër fii sa adoon si mbedd àll si ba nga xamante ni amaamal maxkam mu ngi si kanam kii mu mu mu ngi si mu ngi si kanamu bilaal bi mu ngi si kanamu mu ngi si kanamu tribunal bi mu ne abu naa sinu papa abu naa sinu papa sadiqu amukum seen xaritu baay tax la mu ne a antum ndax yéen mu darisuna ay jàng na la laa nax nu ñin atibaaw na ay docteur nañ mu ne a antum yéen ndax yéen abuna um mudir doomu directeur bi men laa nax nu ñin mu ne nax nu ñin xafadatuhu na nax nu ñin xafadatuhu xafadatuna ay sëtam lañ mu ne madarasatuna suñu école nag kabiratun aji mag la wa mudarrisatukum seen jàngalekat nag saxiratun aji ndaw la lana ñun mu ne laa lanaa ñeel nañu xadiqatun saarde jamilatun bu rafet fi tilkal qaryat ci bile dëkk mu ne hmm, mu ne axwaanu taalibi mbokk taalibe fi kulliyati tabbi ñi ngi ci kulliya bi a antum ndax yéen at ba at baawun ay docteur ngeen baxadum ñeen ñi at baawun ay docteur nañ wa baxadum ñeneen ñi muhandisuna ay ingénieur nañ allahu yàlla rabbuna mooy seen borom wa rabbukum te mooy seen borom mu ne ay na sahabtum fan ngeen dem yaa ixwaan yi mbokk sahab naa dem nañ ila suuq jëm si marché mu adif laafal asma al aati ismi di dikk ila damirin kam jëmle ko si damir mu ne foo moom leeral film si misaal bi mu ne baytun kër baytukum seen kër baytu naa suñu kër ummun yaay xammun bayta sadiqun xarit dugal yi baytun baytukum baytu ah. mu dara suñu jàngalekat mu ne uxtun mbokk mu ne luxut luxatun làng diinun diina abun papa axun mbokk nee na yi dugal damir yi mu ne iqra jàngal ay yawmin ban suur hada bi mu ne hada sabti mooy suuru mm, samedi mu ne na sahrin ban weer la hada bi mu ne hada bi sahru rajab mooy weeru rajab mu ne ayi ban kuliya la haasi bi mu ne haasi mooy kuliya commerçant bi mu ne fii ayi madrasatin ban école anta yow mu ne ana madrasatin mutawassit maa ngi si école diggu doom bi baladin ban dëkk anta yow yaa xi sama mbokk ana minal yunaan minal yunaan mu yunaan mu ne iqra waktub ta nga bind william william edward edward mu ne landun landun mu baris mu ne london london barisun paris mu pakistan pakistan mu ne mm, mu ne istanbul istanbul ibrahim ibrahim ismail ismail ishaq mu ne yaqub yaqub mu ne ayub ayub suleyman suleyman daawud daawud yunus yunus idris idris jibril jibril mikail mu ne mu ne firawnu moo si gën a bon nag mu ne iqra jàngal alam sa misaal yi suma xabil topp nga raam daal al jumlatul aati jumla yi dikk noom mu ne anta yow sahabta dem nga ilal madrasa jëm si école bi antum yéen sahabtum dem ngeen ilal madrasa jëm si école bi mu ko defee ne anta yow xarajat génn nga minal fas jugee si classe bi waxal ñoom génn nañ si classe bi mu ne ay la sahabta fan nga dem yaa xëy sama mbokk waxal ñoom ñëpp dem nañ si waxal waxal ñoom ñoom samay mbokk fan nañ dem mu ne li maasaa xaraj te la moo tax nga génn minal fas jóge si classe bi yaa wala yow xale bi waxal yow xale bi la moo tax nga xale yi lan moo tax ngeen génn si classe bi mu ne alkalimatul jadidi baatu bees yi mu ne mu ne alkalimatul jadidi baatu bees bi mu ne alxafidu mooy firi sët mu ne ibnun mooy firi doom libnun mooy firi doom mu ne awibnun wala doom albint mooy firi doom bu jigéen jamoo ba xafaadatun mooy ay sët mu ne al kuliyatu kuliya jamoo ba kuliyaat mooy ay kuliya kuliyatu tabib kuliya docteur bi mu ne kuliyatun saaran kuliya kii bi sariya mu ne kuliyatul handisi kuliya ingénieur bi mu ne kuliyatu tajir kuliya commerçant bi al mahkam mooy tribunal bi mu ne alaa kumatir mbokk jamoo ba taxawatun ay mbokk wa ixwaani wala ay mbokk jigéen mu ne wala samay mbokk mu ne ahlan waaj ñu ngi lay waaj waaj wa sahlan ñu ngi lay yaatal wa marhaban ñu ngi lay dalal mu ne al yu al yunaanu yunaan mu ne nasar ci xool na jongo ba nas nas nasaraan yi nasaraan jongo ba nasaara ay nasaraan mu ne albalad mooy firi dëkk jamoo ba bilaadun mooy firi dëkk kon loolu lañ jot na indi si darsu bi lépp lu si jub si yàlla lépp lu si dëng si daat xam-xam la in uridu illa al islaam ma stata'tu wa ma tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa barakaatu